sëriñ Am Ndiaye la xam naa di wax ci kàddu euh, euh, sunu askan waaye di jëlaale kàddu mbooleem chef de village yi nga xamante ni yëpp ñoom ñoo nekk ci barab bi. li nu tax génn nag weesuwul li nga xamante ni moom mooy mbirum Aquatech ni ñu ko déggee ci réew mépp rek nga xam te xamante ni fu mu jaar rek ay jafe-jafe moom la moom la fa bàyyi jafe-jafe yooyu nag ñu koy dégg ci li nu wër lépp jafe-jafe yooyu moom lañ bëgg a moytu moo waral population bi ñëpp génn àndandoo lànk bañ. comme ni nga xamante ni la amee ci Sénégal gépp ñëpp lànkanoo bañanoo te ñëpp xam ne tamit ak waatek fu mu dem musiba rek moom la fay bàyyi suñ noonu ko misaal dañuy wax ni njéeréel la fu mu dem rek njariñ la fa nekk moom lay jël dal di dem yoonam loolu exemple yi mboolem ku may dégg foo mën di nekk rek loolu mën nga koo tiire ci côté bi nga nekk ba tax na ñi ngi woo sunu askan taxaw nañ ba pare pour passation de service am fii ci suñuy néew ci la ñuy jaar ba pare loolu doo mën a nekk saa yu nu ba pare su boobaa mën na noo passation de service na am waaye li feeg amul mbir mi mënut a am ñi ngi interpellé suñu autorité yi nga xam ne ñoom ñoo fi nekk tàmbalee ko ci sous préfet ba mu fi ñëwee euh, moom ci jëmmam moo nu wax ni nu Aquatech mënu mëneewu ko te mëteewu ko tamit te def na raccord jox ko sous préfet bu Tivaouane mu jox ko gouverneur mu dem ci président de la république mu wax ni mëneewu ko mëteewu ko sous préfet moom moo nu wax loolu monsieur le maire noonu mais kooku nan la mën a dikkaatee ba pare di ànd ak Aquatech ni da ko ni ni dafa bëgg mu jël euh, dafa bëgg mu tàmbalee liggéey loolu mënul nekk kon ñoom autorité ñi ngi leen di ñi leen di woo di woo maanaam ndax lii loo xamante ni la national la problème national la mboolem mairie Sénégal yi eh, Alioune Sall maa ngi koy wax ak sous-préfet yi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci réew mi ñëpp ñu defar raccord président la république wax maanaam jafe-jafe yi nga xamante ne nii waa Aquatec ñu ngi waa Aquatec ñu ngi ñu koy teg loolu dafa jot autorités yi jóg ci sunu forage ñu ngi ko booba léegi juróom-ñaari at ñu ngi ko amee woon ci jàpp na lu Ablaye Diop Ablaye Diop euh, ancien ministre de finance fii fii mooy dëkkam ci jàpp ndalam ak état de Sénégal ci lañ ko amee boobee ba léegi ancien ministre de finance. fii fi la dëkk fii mooy dëkk fii mooy dëkk maamam forage suñ ko amee moom la grâce à moom suñu amee courant grâce lu nu am loo xamante ne état koy joxe mi ngi jaar ci Abdoulaye Diop su ak talib yi ngeen jaar su fekkoon ni monsieur le maire monsieur le maire mi nga xamante ni ñu ngi koy wax ni ko moom na ñëw jàppale nu ci xeex bi ndax suñu bët su xongee ci moom lañ jëm si te moom mënunoon nandal 15 jours ngi amul ndox ak li ko wër lépp fii fi la ñu root fii fi la ñu nandal fukki dëkk ak juróom-ñaar fukki dëkk ak juróom suñu xoolee lii juróom-ñett dëkkee la yoo xamante ni danoo àndandoo muy Minnam jóob bi Ablaye Diop dëkk Mbayeen 3 kër Mbay kër Samba Awa kër Malle yo Minnam Diop Touba Fall yooyu moom la nu yooyu moom lay yooyu moom lay moom lay nandal muy kër ma mbay ak kër ma mbay kon loolu lépp ñu bàyyi ci xel askan wu toll noonu nag mun noo dëkk ci di rootaani te ñun mos na noo ñam rootaani Abdoulaye Diop moo mënu ca génne fasatun yéene de dellu ca luñ ci bañul rek ñun bañun ko ci ñi ngi woo monsieur le maire mi nga xam ne suñu bët su xongee ci moom lañ jëm te mun noo nandal ndax ab goo xam paan nan dippi numu tarati mun noo dépaan te waa Aquatam ñoo fa jaar Mboro la Sénégal gépp exemple la kon maire yi nan àndanoo ak Aline Sall ñu def raccord wax président de la république mu teggi waa Aquatec ci kaw askan ñun àll sonn nan lool musiba moo Aquatec musiba la ci ñun kon jot na Aline Sall ak sous-préfet yëpp ñu bind raccord jox ko gouverneur ñoo àggale ko président de la république mu xam ne Aquatech doy na soxlawuñ ko juróom-ñaari at saa yuñ paanee ñetti fan ñu dépanne gën ngaa bari ñetti fan pompe paan nañ ko ñetti fan ñu dépanne Aquatech soo paanee xamoo xamoo fu nekk kon jot na kilifa yi nga xamante ni ñooy autorités yi ñu teggi Aquatech ci ci suñ kaw Aquatech dafa aay gaaf ñun soxlawuñ aay gaaf Khady Gueye Kër Samba Awa waaw ma ñëw nag teewal fi juróom-ñetti dëkk jigéen ñi jigéen juróom-ñetti dëkk yëpp ñun daan nañu reer di fanaan ci ay teen ba asamaan set mhm. reer nañu fanaan ci ay robinet ba asamaan set mhm. man toppatootuñu woon suñu borom kër yi mhm. suñu ministre de finance bii de nekkoon Ablaye Diop ñu koy ñaan yàlla guddal fanam yokku wéram ndax tey nag lu ñu sagoo ci at réew mi rek moom la suñu forage bii nag waa Aquatef nee leen bu dee jàmm lañuy ñuy dox bëggal réew mi jàmm bëggal ñu jàmm nañ ñu bàyyi ndax ñun ci commencé ci Modou muy président bi ba ñi mu ëmb ñëpp suñu forage bi laaf cat la ñuy ñaan manqué wuñu ndox jaaxle wuñu dara dañuy dimbali bay bay def sax solidarité ci biir forage bi ngir dimbali askan wi ba ci étudiants yi kon ñun suñu forage jaaxle wuñ ko ñu ko yor ñu président kii maire maire alelo su dee jàmm la bëgg ci goxam nañu déglu bu dee mooy signé wala daa signé ba pare nani waxeet ndax ñun dimbali ragaluñu ku ñu dimbali mën nañoo yor suñu bopp suñu forage ñi ko yor doy nañu ñun jigéen juróom-ñetti dëkk yi nag ak waa tef buy jël suñu for bi dina romb néew yu bari président Aliou Lo nag bu ko jaralee wala askanam ya réeral askanam jaral ko ko bàyyi nañ ko ñun jigéen dëkk bi nag laxasu nañ biskin ki tey ndax bu ndox jafee ñun ñooy sonn ñun ñoo nekk ci kër yi bañu ñu ci dara nag ñoo lànk ñoo bañ ñoo lànk ñoo bañ fii ci Kër Mallé ci kàddu imaam yëpp laay wax ci siit yu nu huit villages liñ ciy wax rek mooy li yonent bi sallallahu waxoon yonent bi dafa waxoon ne annaasu sawaasiyatun fii salaas almaau annaaru alkala'u yonent bi nee na nit ñi ñoo yam ci ñett ñoo ci bokk yam ay droit ñoo ci bokk yam ay bëgg-bëgg ñoo ci bokk yam ay yayef mooy ndox ak courant akub liggéeyukaay ndox mi nag yàlla andil nañ ko ci ca ndox di xéwal ci askan wépp ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla moo wax ci alquran wa jaalna min al maa'i kulla shay'in xayin lépp loo xam ne dund nga soxla nga am ndox ca ndox mii tabaarakallaahu juróom-ñaari at ngi nii mu nekk fii ci dëkk bi bu jëkkaan mag daana jóg fii tabaarakallaahu soxnaam nekk ca teen ba wala mu rootaane faneen mu koy xaar pour heure julli mu mën a jàpp wala mu mën a mën a set mën a laab dem ca jàkka ja ca daw gis am ndox léegi nag tabaarakallaahu sunuy salle de bain sax pression bi tabaarakallaahu yéeme na lool waxuma la ak tabaarakallaahu fi ñuy jàppoo ak fi ñuy sangoo ak fi ñuy doxale suñuy lépp te mm-hmm. fii ay yarkat yi jur lañu mm-hmm. bu fekkente ni nii am ndox manqué na fi nit ñi dinañ laru comme ni jur gi laroo te bari na ñoo xamante ni boo duggee ci gétt yi nag yi boo duggee fii dëkk gétt boo gis aw naka nga fa di yeewe te ndox moo mu ci la ñuy jëfandikoo ca xale yi nga xamante ñoom lañ ko dénk kenn gënu leen a wóor kenn gënu leen a wér kenn gënu leen a mën a doxal session ca jàng nañu ñu ci gën a néew ay ay diplôme am nañu bac te ñoom lañ ko dénk te doy na nu sëkk kan li ñu bëgg mooy Aquatech nan ñu tegal suñu yëf fii bàyyi woon ak suñu xale tegal na ko suñu loxo ci suñu loxo njaboot ñu doxalanteeg ñoom kon nun ko daan doxalante insha allahu rabbul isa jaaxlee gunu jàkka gunu bay woo atuwaate kon nan nu bàyyeeg lépp wasalaamaaleykum wa rahmatullah je m'appelle Matar Gueye représentant askan ici au niveau des huit villages aujourd'hui si vous voyez cette grande rassemblement c'est juste que vous, vous, vous comprenez que nous sommes là pour défendre une cause noble plus que déterminés pour dire non à Aquatec. Parce que nous avons toutes ces informations sur Aquatec. Partout où il a passé, il laisse des problèmes aux populations. Il est là pour, que son, pour son propre intérêt. Nous sommes prêts pour dire non et on, pour engager toutes les responsabilités. Vous voyez qu'au moment où nous sommes, le pays, tout, tout, le monde sait que le pays a, lancé ses, stratégies pour, pour lutter contre le coronavirus. Mais vous voyez très clairement que l'eau est indispensable dans la vie de l'homme. Et Aquatec, si une fois qu'il est, qu est, dans nos gestions de, nos huit villages, nous aurons des problèmes. Et depuis 2015, on a un comité ici présent. Il gère la gestion de, notre, notre forage dans les meilleures conditions. Nous n'avons pas le problème de l'eau, même, si, même, même quand, on, nos forages sont tombés en panne, avant 24 heures, il règle ce problème. Et ça, si, si, ça on, on, sait très bien, pertinemment que Aquatec ne peut pas faire ça. Nous ne voulons pas Aquatec dans notre gestion, nous ne voulons pas Aquatec dans notre gestion et nous disons non à Aquatec. Quel que soit Alpha, quand il, vient ici pour faire la, la, passation de service, il va passer dans nos tombes pour, pour, pour, pour occuper cette forage. Village. Ouais, 15 villages. Je peux, je peux, je peux donner un résumé. Ici, c'est à 8 villages. Mbayen, Kermale, Kermbaï, Menam, Kër Samba Djingé Thialé et les cinq villages là-bas Kër Madiagne et, et, et, et tant que ces 15 ces 15 villages rep, représentent ce forage et nous n'avons jamais eu de problème de, problème d'eau et Aquatec s'il s'il vient ici c'est pour nous aider et nous nous voulons pas qu'il nous aide il n'a qu'à partir et s'il ne le fait pas on est prêt et on attend ici ferme avec fermeté et on va combattre avec lui sans sans sans sans aucune peur on, on, nous lançons un appel à, au Monsieur le Président de la République, nous lançons un appel aux autorités locales, que ce soit le sous-préfet, que ce soit la, le maire de la commune de Taïba, parce que eux, ils ont déjà donné leur aval pour qu'Aquatec prenne ce, ce, forage. Mais la population, on va prendre notre responsabilité en main et dire non. Parce que le, le sous-préfet, il nous a même appris ça, qu'Aquatec n'est ni à la hauteur, ni à la compétence de, de, gérer cette forage. Aquatec n'est ni à la hauteur, ni la compétence de gérer la gestion de l'eau. Pourquoi pas il, il vient ici pourquoi, pourquoi pas il vient ici Hier, il, il, hier, totalement. Et aujourd'hui, il a accepté qu'Aquatec vienne ici. Nous ne, voulons, nous ne voulons même pas comprendre pourquoi il a accepté. Mais nous, la population, nous restons fermes à notre position qu'Aquatec dégage, et non Aquatec. Ici, au, niveau de notre gestion de, de, de, Je vous remercie.